فتح القوي المتين بشرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله جميعا والشيخ العلامة المحدث عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله تعالى xam noo ngi woon ci alxadiisul awal muy xadiis bu jëkk bi mu mel ni doxoon nanu ba agsi ci ñeenteelu tomb bi ca tomb yi nga xam ni boroom téere bi tàmbali woon na ko génnee ci leeral xadiis bi le te muy xadiisu innamal a'maal bi mu mel ni foofa gisoon nanu innama al amalu binniyat la muy wundu maanaam la muy tekki ndax innama al amalu binniyat des koo tënk ci jëf yi nga xam ni ay jëfu jaamu la wala boog lees boyal la loo xam ni day dugg rek ci mboolem jëf ak it gisoon nanu la yéene di tekki boole googu nga xam ne mooy innama al amalu binniyat la muy wundu it ak it dikku ki yéene maanaam anam ya nga xam ni ci la yéene di dikk mu mel ni ca foofa lanu taxawe woon waroom xam-xam yi dañuy wax ne yéene ñaari xaaju moo tax moom boroom téere bi junj na ko mu ne wa tati li tamyiz بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف من ne moom di ràññetle jaamu yi ñoom ci seen biir jëf yi nga xam ne ay jëfi jaamu la lu mel ni ràññetle digganteloo farata ak morom wala boog diggante farata ak naafila mu ne yéene dina dikkit di ràññetle diggante la nga xam ni jaamu la ak la nga xam ni aada mu mel ni foofa gisoon nanu ne ñooñe nga xam ne ñooy ahlul yaqada muy gaañi maanaam ña nga xam ni ay jaamukat dëgg lañ dañoo dëgmal dëgg ji dëgmal ci jaamu seen borom soobu yoon wi nga xam ni mooy yoonub jaamu tegu ci yoon wi nga xam ni mooy yoonu ixlaas muy sellal teg seen tànk ci siraat al mustaqim ci njàngale yi yonante bi alayhi salaatu wassalaam ak la nga xam ni ca la gaañu baax ja nekkoon démb gaañu baax ña ca saxaaba ya ridwanullahi alayhim ak seeni ndonga ak ndonga yi ñooña ñuy salafu saalix ñooña gisoon nanu ne ñoom sax de ba ci seeni aadaat dañuy fexe ba aadama ñu cee am yool mu mel ni nañuy amee yool ca ibadaat ya wuuteeg ña nga xam ne nag ñooy way sàgganeer nga xam ni ñoom faf sax seeni ibadat mooy seeni jaamu day mujj dooni aada habitude kese la da nga am habitude julli bu julli jotee nga julli bila ixlaasin wala itibaain lissunna yow daal julli jot na nga daal dikk ci jàkk ji julli julli ga àndul ak ixlaas julli ga àndul ak roy ca sunna yonant bi aleyhi salaatu wassalaam ñooña ñooy ña nga xam ni ñooy ahlul xafla moo tax kon waroon xam-xam yi ci leeral loolu ñu ne yéene ñaari xaaj la yéene bi nga xam ni mutaalliqun bil ibadat day yéene ba nga xam ni daa aju ci jëf yi ci jaamu ya ngay def ak it yéene ba nga xam ni mutaalliqatun bil ma'bud dafa aju ca ka ngay jaamu كومني صالح آل شيخ مم لولا لا يوفى منين أما المتعلقة بالعبادة فهي التي يستعملها الفقهاء في الأحكام حين يأتون إلى الشروط الشرط الأول النية يقصدون بذلك النية المتوجهة للعبادة وهي تمييز العبادات بعضها عن بعض moye yéena ja nga xam ni dafa aju ci jaamu gi ci boppam mooy yéene ja nga xam ni moom la waroom xam-xami fiq ya di jëfandikoo bu ñu dikkee ci attaya di wax ci wàlli charte ak yu ni demee nan la bokk na ca charte ya yéene wala charte bu njëkk ba mooy yéene mu ne loola lañ ca jublu mooy yéene ga nga xam ni dafa jëm ca jaamu ga ca boppam te mooy ràññatle jaamu ya lenn ca ñoom ca ña ca des diggante farata ak farata lu demee ni ki julli diggante julli farata ak morom wala bok digënté farata ak nafila ñaareel ba mu ne al qismu thani niyyatu al mutawajjihatu lil ma'bud wa hadhihi hiya allati yatahaddathu anha aw yutahaddathu anha bi bismi alixlaas ikhlas alqalb ixlaasu alniya ixlaasu alamal lillahi jalla wa ala وهي التي تستعمل كثيرا بلفظ النية والإخلاص والقصد نعرى البموي يين جغا خمد دفا جمتيا كنغي جام ونه يين جوجو نك موي يين جغا خمد موم لني وقتاني تطورو إخلاص دي كوكو ووي ما نم سلل سلل خلبة سلل يين جغا sellal jëf-jëf ñeel kan ñeel allah subhanahu moom dong mu ne kon mooy yéene ji nga xam ni moom lañuy jëfandikoo lu bare bari ci turu yéene ak sellal ak jubluwaay sellal sa jubluwaay kon yéena ñaari xaaj yooyee la làmboo Cheikh Abdul teg ci mu ne wa qawluhu وإنما لكل امرئ ما نوى قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى فإنما الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة منكم wa innama li kulli imri'in ma nawa ñelna kune rek jëmmu june ca jëfam la muy yéene maanaam jëmmu june la muy am ca jëfam mooy la muy yéene ma ngoog mooy la muy yéene daa mel ni wax jooju wax dëgg wax la joo xamante ni nii boo xoolee wolof da caa roy yéene néeg la boroom a cay fanaan donte foofu sax jubluwaay bi dafa gën a fës ci lu ñaaw walla lu baax la nga xam ni moom nga yéene keneen rawatina nag lu ñaaw sax mango waaye gis nga xadiis bii kon da gis nii firnde la ca loola maanaam la nga yéene loola ngay am ci say jëf la nga koy yéene mooy la ngay am yéene néeg la boroom a cay fanaan yow mi ko yéene yaa cay fanaan kon yaa koy wéetoo ca yow lay dellu la nga yéene ngay am moo tax kon yéene yi doon loo xam ne lu jar a xel la seytaane nag bokk na ci ya nga xam ni mooy barab yi nga xam ni da ciy galgal doomu aadama mangook dafa bokk ci barab ya nga xam ni seytaane da ciy galgal doomu aadama seytaane dafa am ay ay outi ay galgal yu muy jëfandikoo waaw bu xamee ni yow mii ak jaamu dalaa yitteel ma dalay prépareel outillage ak système d'attaque boo xam ni dala ci mën a galgal yow mi nga xam ni ak jaamu moo la yitteel keneen nga xam ne nag caaxaana ko yitteel it mu préparé ko mu defal ko wala mu wutal ko jumtuwaay ak galgal yoo xam ni day méngoo moom ma te lu ci bëri day doon galgal yoo xam ni galgal des la maanaam da la fay maîtriser ndax gannaaw ba nga xam ne tarxis nga ba jàll te tuuboo dellu si waat fipp woo benn yoon pour dellu si waat ci siraatal mustaqim gis nga day fexe tegal la fa kon yoo xam ni ñoo la fay téye surtout nag bu toppee bu baax saytu la xol la caaf la bu baax ba xam ni yow nii nit nga koo xam ni da ngay topp sa bànneex bu ko defee mu jaar la ci buntu yooyee noona it lay fexe di galgal ñi nga xam ni dañoo fippu di góorgóorlu dëgmal di jaamu seen boroom ci di fexe di leen gàllankoor ci seen yéene bango fexe di leen gàllankoor ci seen yéene ndax xam na ni mënu leen a teree jëf xam na loola léegi nag fa muy mise mooy kon du ñëw di combat ak yow di la teree jëf parce que xam na ni amul capacité boobu ndax am nga décision ci jëf gis nga seytaane day teg stratégie de ba ngoor gis nga waroom xam-xam yi dañoo bind ci moom demee ci téere bu mel ni talbiisu iblis wala iraasatul lahfan téere yu mel noonee dalay won stratégie yi nga xam ni seytaane da koy teg waaw fa muy jaar nit ñi ak seen wuutewaay seen daraja seen xam-xam seen sati seen tolluwaay seenu góorgóorlu ku ne rek fa muy fexe jaar la fa ak yam la fay tegtal tegal ci ay xeeti galgal ma ngoog ci misaal tey bu fekkee mënulaa teree dem jàngi masalan kon du sonn ci di la gàllankoor ci nga bañ a jàngi parce que bu boobaa combat bi xam na ni c'est perdu d'avance ci moom lay metti day jël effort def ko feneen maanaam boo jàngee ba dem mu fexe doo suivre na nga war a suivre waaw ngir nga bañ a comprendre mbind mi gis nga boo góorgóorloo ba jàll foofu it mu fexe ba nax la ba ne la ah leçon bi daal leçon bi moom yàgg nga ko déggee miin nga ko jarul nga koy jàng gis nga bu ko defee réviser leçon ba ak jàng ko daal di lay rëcc gis nga na waroon a kon bénéficier woo ci dars boobee bu boobaa du ni demee puisque mënu laa tere jël dars kon nu muy def day fexe kon la ngay jëriñoo ca dars ba lu mu gën a néew rek mu gën a baax ci moom moom daal ñàkk lay bañ seytaane ñàkk lay bañ loolu nag boo ko xamee yow miy jaam bi aha da jël say matuwaay xam ni ndekete seytaane xeebul dara ñàkk lay bañ kon man nag ci waar wépp ci tool bi yëpp tout au parcours ah dinaa fexe nag piège yi muy teg obstacle yi muy teg ma dimbandikoo sama boroom ñaan ko mu defal ma tawfiq ba ma bañ cee daanu daal di koy jàll daal di cee mucc ba gis nga kon mënulaa teree jóg def waaye nag dana jéem fexe gàllankoor yéene ba ah neexul ba neexul nag de waaye fii kenn deful yow rek yaay def gis nga neexul ba neexul nag dëgg moom dañ koy wax fii nag kenn deful yow rek yaay def nga tàmbalee gis sa bopp alaysa kazalik nga tàmbalee yëg sa bopp gis nga ma ngoog bu ko defee mu ngay yëkkati fa nga tegoon sa tànk ndànk ndànk mu ngi koy yëkkati ca yéene ja nag lay tàmbalee ma ngoog gis nga kon moom saa su rek dana fexe nu mu am moo tax léegoo léeg dana jekku nit jekku boo xamante ni nii ñu bari dañ doon yaakaar ne kii kat rëcc na kii kat ndeke rëcc na mbangoog ba dara desut lu dul diggam ak àjjana mu tàbbi ca lu dul lu néew rek galgal ga daldi dal mbangoog dogalu borom bi jalla wa ala dal di tabbi waja xawé wallahu mustaan ñu ne inhirafna ay diw wa gis nga diw légué gis nga ndekete diw dal lam doon dajale ci jëf yu bari yëpp yéne ya daawul baax gis nga amna xétu galgal yo xamni oh subhanallah yàlla nañ ci borom bi jalla wa ala musal oh bu la fa galgalee laa ilaha illallah laanu bi day metti jëlli bi day metti maanaam daal mën nga ne aamilatun nasiba tasla naaran xaamiya ci benn ci pér yi kër këri ndey seen jëf jëf jëf te jëf jalan la habaan manthura wa qadimna ila ma amilu min amal gis na jëf ya nekk lan habaan yàlla nañ ci borom bi jàlla wala musal yàlla nañ ci borom bi jàlla wala musal kon mbir mi gis nga bul yaakaar na yow muy julli ji julli ji jàkka ja yow raw nga déedéet lay sa baax waaw la imaam ahmad waxoon waaw seytaane xoolal bàyyiwul imaam ahmad de ba ca sukkuraan mu dikk ne xaaral ma tànte sens waaw waa ji daal du ma rëcce noonu xaaral ma tànte sens ci moom lu ma am ma ngoog def kamikaze motax gis nga kamikaze du yëfu islam yëfu seytaane la kamikaze yëfu seytaane la du yëfu l'islam du prince bu l'islam prince bu seytaane la maa mom moom seytaane mu dikki imam ahmad ya ahmad futani ay waaye sama waa ji rëcc nga ma nii rek mëna duma la dara rëcc nga ma nii rek imam ahmad ne ko lay sabaat lay sabaat déet déet do ci ko ma do ci ko wala ndax ruu gi ruu gi ak lu ma nekk nekk ci sukuraat ruu gi génnagul gis nga jaamu borom bi jàlla waala gis nga gaaña gis nga gis nga sabaat bi leen bi borom bi jàlla waala may ba ci sukuraat fi gën a tar ci dund nit ki sunu borom defal leen sabaat sabaat ala siraat al mustaqim dafa leen sabaat ci seen yéene sabaat ci bañ a gis seen bopp ci la ñuy jëf bañ cee yëg seen bopp torfatal ayin seen jëf yépp doon loo xam ni xaalisan li wajhillah yoo la nga ko nga xam kon gis nga yéenee nga noona mu ne kon fii ibn rajab dafa wax ne xibaare la boo xam ni ah nit ki kat ki nga xam ni mooy jëfkat bi du am ci jëfam lu dul la mu yéene bu fekkee lu baax la yéene lu baax lay am bu fekkee nag lu bon la yéene lu bon lay am mu ne lii kon du bàmt innama al amalu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa loola lu bant déedéet ndax kàddu bu njëkk gi te muy innamal amalu bin niyaat la muy tegtale mooy baaxub jëf ji wala boog yàqu jëf ji kéem na yéene ba nga xam ni ci la jëf ja sosoo mel na yéene ba mel rek jëf ja noonu lay mel da koy topp ñaareelu kàddu gi dafay tegtale ne la nga xam ni mooy yoolu aji jëf ji mooy kii jëf-jëf ji nag bi yoon xam nga fële jëf-jëf ma ngo baaxu jëf jeeg yàqu jëf gi ci yéene gën a mu mel fii nag kii jëf-jëf ji nag ma ngo yoolam moom ca jëfam ma ngay dellu rekk kéem yéeneem na yéene ba baaxe mbugalam li ba nga xam ne da koy jëlee ca jëf joojee da ko ca toggoo ma ngay dellu ca kéem na yéene ba yàqoo rek ma mu ne yéene ji mën naa doon loo xam ne lu dagan la jëf ji it doon loo xamante ni lu dagan la bu boobaa kon du ca ameeg yool waaye du ca amee la nga xam ni mooy iqaab ay daan ma ngoog mu ne kon fal amalu fi nafsihi صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده كون دال جفتي تي بوكو باخام موم جفتي ولا يقوم ولا دغنام لولا دال ماغي ديلو تي يينا جاغا خامني مو لالو تا يانو جف جوجي كيم لا يينا جمل مانغو وثواب العامل وإقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا يول كي جف جف جنك ولا بوك مغلم ولا مجم لولا نك مغا ديلو كيم يكا yéene باغا nga ني موي nii جا لالو تي جف جوجي نمو سيل رك ولا نمو rek ولا نمو دا